dikkati naa dialogue politique bi day jeex na noppi yëpp daal di fireeku fas yéene xaar sàll ngaari lam tooro bur gédé mu wax vox populi moom ma ko xamal tribune yéene kaay ne ma déet dialogue ba kay jeexul deal politique bi doon def ci ndoddug sénégalais yi waaye tam ci ndoddug yoonu réewum senegal moo daal di jeex dialogue ba nag daal di jeex la ca gën a fës moom moo di Karim Meïssa Wade ak atteem bi nga xam ne warees na ko ubbi waat ci réewum sénégal yéene kaay média bi naan man ay laaj daal di samp ndax condition bi nga xam ne nag tax na ñuy saytuwaat atteeb Karim Meïssa Wade bi taxaw xew na ci réewum Sénégal ndax lépp matale na lan moo tax nag ñu war a ubbi waat atte Karim sa Wade bii war ko attewaat ci réew mi amul lenn lu yees loo xam ne amaat na ci mbir mi amul élément bu yees boo xam ne duggaat na ci biir dossier bi kon lan moo war a sabab ñu war a attewaat Karim Meïssa Wade yéen kaay bi naan man dil baa ngi te coow li loo ci manti dégg di wax ji wax ji cour suprême la ndax ëttu attekaay bu kawe bi moo war a nag saytuwaat atte Karim Meïssa Wade bi avocat mi ci yéen kaay bi naan ko déet bul juum Karim Meïssa Wade nekkaat na électeur mën a soobuwaat ci làngu langu politique gi nekk candidat ci lu mënti doon 2021 ba tey li tee mooy yéene kaay naan nax sa bopp aayut dialogue ngeen ba mu sax waxtaan ci seen biir ba mu neex xëy suba naan ñii candidat la ñee duñu doon candidat moo taxit ñu bëri ci observateur yi xam le na ni dialogue politique bi daal du lenn lu dul neexal ñenn ñi ñu am lu ñu bëgg ngir président Macky Sall moom daal di talal yoonam soo bu jagat jagati wutim ndënd sampal ko sénégalais yi ni leen troisième mandat laay wuti Adama Faye ci tribune yéene kaay naan bu ko defee de l'observateur naan kon may bi xamal la ni nag dialogue politique bi Khalifa Ababacar Sall moo ca am ndam waaye moo ca perte moom Khalifa Ababacar Sall amul amnistie de déedéet kenn setalu ko ci lenn dañu ne ko kay dañuy soppiwaat article L28 ak L29 ci réewum Sénégal maanaam ka xam ne daal dinay tëdd kaso ñu gracier ko jéggal ko su génnee kaso bi ñu mën ko soobaat ci langue politique gi waaye nag lañ ko waxoon ne ko yaa jël alalu askan wi dara teggeeku ca xalifa mën naa bokk ci élection waaye benn tuuma bañ ko tegoon teggiwul tribune yéene kaay naan Karim Meïssa Wade ña koy fas yéene teggil bien boo lañ ko tegoon laas yéene kaay naan dialogue ba jeex na ñu fas yéene jébbal président Macky Sall la nga xam ne liggéey nañ ko tey moom Sall nag fas yéene wax ak sénégalais yi yéene bi naan man coow la coow la nay ponk yoo xam ni déggoo amu ca amuñu déggoo ca ka nga xam moo war a organiser élection ndax nag opposition ak société civile dañoo bëgg ñu taxawal ministère boo xam ne ay élection lay tëgg te fay teg du bokk fenn ci langu politique gi ñu ànd ak président Macky Sall lank ba tëdd ca naaj wa ne élection mësta indi jafe-jafe ci réewum Sénégal Sénégal yéeni kaay bi ne nekkub njiitum réew nekkub chef de parti gaaya bañ nañ ko majorité présidentielle ba lank ne du fi dañ daal dina ñuy waxtaan na ci ñi nga xam ne ñu leen di topp fi mu ne waaye itam détenu yi nga xam ne jàpp nañ leen te politique moo ko waral ñu bàyyi leen gaaya ànd ak président Macky Sall lank ne du ca dal na nga xam ne yoon ma ngi koy tëddee ci ñi nga xam ne dañ leen tëj ba noppi te code électoral bi am lu mu wax ci ñoom ñoom ñu l loolee ne du ca dal le témoin yéeni kaay mel ni ku naan kon sama wax day jalu Moussa gaay yi def nañ seen dialogue ci bokk ni Ousmane Sonko ñu sempi réew mi quotidien ne dëgg-dëgg mbir yi nag dafa am lu muy nuru Ousmane Sonko lan moo teree nag délit bu corruption à la jeunesse bi ñu daal di koy nooyal ba Ousmane Sonko nag mën a bokk ci élection ci réew réewum Sénégal ndax yenn nii nag boo seetee ba seet faagaagal ñenn ñi bëgg ñenn ñi jàll la turbine yéen a kaay naan kon Adama Faye day ma nga naan sàll ngaari lam toora bur gën a jëlal siis ma yedd la boo ma dégluwul yow président Macky Sall nga dem kilifa diine la ñetteelu mandat bi nga xam ne bëgg ko ci réewum Sénégal bu mu ca dal président Macky Sall defal ni say ñooñ jaaral ci buntu bu baax bi bañ a génnee ci réew réewum Sénégal ak i dàll yu lay dàqee ki gàccee Adama fay naan président Macky Sall déglul kilifa diine yi ñu wax ak yow wax la dëgg mooy troisième mandat amoo sañsañ sañ yoon mayu la ko ci réew mi ndax ñaar yoon lan may président mu waat bu ñettee def na loo xam ne yoon may ko ko ci réew mi bul fu xarti te bul caxat caxatee gëm-gëmu réewum Sénégal sàll bul taal réew mi bàyyil sa mandat bi ci suuf Adama ko ko wax naan kon xam nga buñ la bàyyee nga samp sëg ndënd gii réew mi tàkk Sénégal jëx-jëxi kenn nag ko réew mi ku dul yow mi nga xam ne askan wi ci boppam nee nan la lan la mayoon sàll ñoo ko jëlaat te la la yoon mayoon bul ko fuqati ci seen loxo demal Omar Jum ci libération mel ni ku naan ko déet yow kay ña nga war a waxal mooy waa yeewi askan wi man moom maa jiite woon école bu parti PRP bu Déthié Fall daal dinaa wan ginnaaw Déthié wan ginnaaw yeewi askan wi ndax ab coalition la boo xam ne gis naa ba gis te fitna la ni yee ci réew mi lu taal ñoo ko fi taal bëgg caxat caxatee état de droit ak Sénégal na muy doxee Omar Jum ne moo tax wan naa leen ginnaaw dem fekki président Macky Sall ñenn ñi nag buñ jàppee ni xaru la man ma jàpp ni soowe Sénégal ak fi mu toll ak fa mu jëm ci ndëgg sërëx tribune yéene kaay ne ko déet ndëgg sërëx gi kay ñi ko jiita ñoo ko teg réew réewum Sénégal moo tax Juan Branco nag jébbal na leen lu toll ci téeméer ak fukk ñaar ci plainte yoo xam ne ay personnalité yu nekk ci réew mi la kalaami ji cour pénal international maître ay Tall Sall ci l'info yéene kaay mel ni ku naan koon xuankoo yab ndax na cour pénal international ñett ñii ñoo ko mën a saisir ab état bu ca bokk conseil bi nga xam ne moo yor wàllu kaaraange ci mbootaayu xeet yi wala it ab procureur tribune nekkoon waaye xuwaan sësir na ko kalaame ji ñaawteef yi nga xam ne mi ngi am ci réew mi faatug bakkan yu sakkan yi nga xam ne ñu ngi koy def ci manifestant yi waaye tam ña nga xam ne ku yëngu ñu jàpp ci réewum Sénégal mel ni kuy lido Dakar Times mel ni ku naan kon déet bul gaatu Sénégal day am na loo xam ne mi ngi yoor te bu ñu ko bàyyee day maar day taali yéeni kaay bi naan man dinaa ñëw ndànk-ndànk ci ñi nga xam ne nag ay terroriste lañu te ñu lëkkaloo ak ñenn ci réewum Sénégal laataa loolu ma xamal la ni Juan Branco mii nga xam ne dugal na bi bind na ab téere boo xam ne ab coup la ko daal di dippee mu mel ni nag dañ ko bëggoon tester ci réewum Sénégal tribune yéen a kaay ne ko déet bu tàkkee it ña ko taal ñana ak lan moo sabab tàkk gi ak lan moo waral nag ay doomu réewum Sénégal yoo xam ne dañ doon manifester ngir fitna waaye itam injustice bi nga xam ne teg nañ ko seen ñooñ ñu jël ñooñee nga xam ne yoruñu ngànnaay lu dul ay xeer di leen tiire ay bal ñuy tëdd di faatu le point yéen a kaay naan maan Njaay Bambel xippil xool ma ngay daaneel Juan Branco waaye moo di Samba wañit ma nga bëgg président Macky Sall daan leen 2024 jël bu amul werante le quotidien le quotidien mel nu naan mandu dul jàmm jàmm ko gën aljuma bu weex tàll F24 woote gannaaw seen manifeste bi mën leen ko lankalee F24 na ngir ñaxtu ñetteelu mandat président Macky Sall bi waaye itam feete M23 bi na ñëpp sol lu weex tàll diggante 13h ak 18h las naan man booba coowal suuf day mi ngi jeexal réewum Sénégal Descos na ak directeur ba colonel Sabouri Ndiaye ñi ngi xamle ni lu tollu ci ñetti junneeg juróomi téeméer ciy plainte Descos jot na ko ci 2022 bi lépp nag aajoo ci coowal suuf yoo xam ne jaxase na réewum Sénégal